yaatu la fa xëy séq ak journal groupe Futur bi ca waxtaan wa ma nga fay wax ne xaalis yàq na politique bi rey na gor ak ngore gi newoon ci nit ñi mu ne li ñuy gis ci réew mi bu ñuy wàcc élection mu di ay wata yu bakkane ay 4 4 ki 8 yu ne jasar ci dëkk bi te kenn xamul fu ñu jóge Thierno Alassane Sall nee na loolee musiba la ci démocratie réew mi réew mi ko tardé réew ci réew mi la ko du ñoom rek ndax ci Macky Sall mi tey amul amul kenn ci ñoom koo xam ne jëm nga lenn lu jëm ci saytu financement parti politique yi politique di defi tournée Walf Quotidien mi ba ñu bari ci ñoom heure bu seen candidature ci présidentielle 2024 yi moom la journal bi xëy di waxtaane nee nañu kii di Karim dara téyewu ko jamono ji ngir mu doon candidat ndax alamaani 138 gi ñu ne da ko war a fay loole munu koo tee doon candidat ka ca des di Bassirou Diomaye Faye moom it li muy bu jugee ci parti politique bu ñu tas amul fenn fu code bi waxee ci cas candidat bu ni mel ay mbiram yéen bi ne nañu bu dee leer ci juróom-ñaari sage ci conseil constitutionnel fa lay leer leeral ak i tontu jëmee ci Aminata Touré moom la soxna Naata Samb xëyee ci journal Tribune ubbil yéen kaay bi li Aminata Touré waxoon démb jëmoon ci di ŋàññi politique état bu Sénégal ci doomi Sénégal yi ci diaspora bi journal Tribune ne nañu madame Bakke Naata Samb mi jiite fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur di FES recadré na Aminata nee na Aminata Touré xamul muy wax waxi politicien la doon wax ak waxi yàqkat nee na tedd waaye ab fond d'appel bu ñu jagleel doomi Sénégal yi ci bitim réew mu banqaaso ci ministère affaires étrangères te 2008 gi ñu ko taxawalee ak léegi bit seem bu doon benn la président Macky Sall def na ko fukk financement gi ñu jagleel jigéeni diaspora bi ak financement gi ñu jagleel sénégalais de l'extérieur jur na lu toll ci juróom-benni téeméeri projet ak ñeent fukk ak ñett ñett ci yéen kay ñu xëyandool tey ji xëy nañu dellu si ci rapport 2023 bu Civis Monitor jëm ci tolluwaayu liberté civique ci réew mi muy tirbin mi bind ci xët mu suñu réew di bokk na ci réew yi gën a dellu gannaaw ca classement ba journal l'info Sénégal daanoo ca classement ba sax moo doy waar Vox Populi nañu répression yi amoon ci réew mi bokk na ci li ko gën a yàqal ci classement ba fonctionnaire yi ci réew mi ak xaalis bu bari bi ñu def ci seeni salaire moo jaaxal journal Le Témoin ba tax mu xëy di ko waxtaane mi ngi ñuy xamal ne fonctionnaire ci réew mi seeni salaire toll na ci 104 weer wu nekk coowal suuf moo nekk ci xët njëkku la Sénégal terrain bu nekk ci Almadi te indi coow rëy ci di bëgg bi mu bëgg a ba terrain jàmbur la mu dib bu nekk ci almadi toll ci 500 mètres ba Mouhamadou Mbeng moo ko moom président de la république gi fi woon moo ko joxoon atum février ci la ko direction de l'enregistrement domaine joxoon aw kayitam février ministre finance ak budget bi fi nekkoon di Abdoulaye Daouda Diallo joxoon ko kayit yu koy may sañ-sañ mu mën a occuper ba terrain boobee la benn waay bu ñu naan Omar Sey bëgg a